ñëpp te di leen baal àq tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñépp bokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci ahib linnaasi maa tuhibbu li nafsika na nga bëggal nit ñi sa bopp na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp jullit bu ci nekk loolu bind la boo xam ne ñu ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk am nga ci wàll na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp mbokk yi xam ngeen ne diine lislaam suñu mboroom daf koo tabax ci ak bëggante akuk jeexital akuk lewet ak muñ ak jéggale ak jukko yu tedd ak topp sunnas yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi tabax nag diine lislaam ci loolu tabax bobu yàlla tabax tabax ko lu dut ngir julit yi ci seen woromi julit kon lay deugural tabax ba mbokk yi julli bu ci nek war nga ko xam ba tey ko jàpp ko ba bañ la waral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam demé ci sahih bukhari ak sahih muslim hadis bo xamné anas ibn malik radiyallahu anhu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kenn ci yéen ak gëmam du mat mukk lu dul li nga bëggal sa bopp da ko bëggal sa moromum jullit kenn ci yéen ak gëmam du mat mukk lu dul li nga bëggal sa bopp danga nga ko bëggal sa moromum jullit beneen lëfzu ci saxiixul muslim wax ne li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal sa mbokkum dëkkandoo beneen lëfzu dikk ne ne kenn du am dëgg-dëgg liimaan lu dul lim bëggal nit ñi lim bëggal boppam moom lay bëggal nit ñi ci aw yiw kon loolu lu mat a taxaw sedd la ndax fi jamono toll bëgg naa la ci làmmiñ moo ëpp moo ëpp doole li nit ñi wax bëgg naa la cib xol wan la cofeel ci làmmiñ it daanaka mu ëpp doole wan la ko cib xol bari na ci ñoo xam ne bokk yi couleur bi ni mel ak yow buñ toogee buñ xasee déplacé wu dootu mel couleur boobu ci yow dana la wan ak cofeel wala mbëggeel waaye ci làmmiñ wala yem fuñ mu toog ña nga yàq sa der di la wax lu bon wala ñu lay waxal lu ñaaw wala ñu waxal loo xam ne dara du ci dañ ca buñ mu toogee ak yow wan la kanam gu leer dégg nga jàpp na yow kii kat mboolem ku lay sopp kii moo la gën a sopp fekk na la muy wax lépp dara du ci dëgg ci moom ca loolu bokk yi lu ci ëpp ci julli ñi rek moom la ñu dund kon nit ki day seet moom li bëggal boppam rek mu bëggal ko mbokki jullitam moo tax sëñ tubaa nee na woon kem ni nga bëgg nit ñi jëflante ko ak yow dee ko jëflante ak doomu aadama yi su fekkee yow da bëgg nit ñi jëflante ak yow ci njëkk ak teraanga lu baax jëflanteel ñoom it ci njëkk ak teraanga lu baax wa kun ma an naasi jamian dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka ni nga bëgg nit ñi ànd koog yow ni nga bëgg nit ñi nekk koog yow kon nekkee ak doomu aadama yi lu mel noonu ànd rek nit doomu aadama yi ci lu mel noonu loolu moo di ak njullit loolu moo di ak aji ak gëm sëñ Tuubaa waxaat ne wa jaalu mislika ka nafsika sawa kem sa yow kem sa maanaam na def sa moroom kem yow bul jàpp na yaa ko gën bul jàpp ne yaa ko ëpp daraja ak lu la yàlla may nag su la yàlla may ab xam-xam bul jàpp ne yaa gën nit ñi wala yaa ëpp daraja bu yàlla joxee alal bul jàpp ne yaa gën nit ñi wala ñu ëpp alal bu yàlla joxee pouvoir wala daraja moo xam président bi la moo xam maire bi la moo xam chef de bi la moo xam kum ci mën a doon bu mu jàpp ne la ko yàlla jox moo tax mu mu gën nit ñi nga ngëneel nekkul foofu wa anna al fadla bi yu yuti man yasha kon képp koo gis nang nga ko def sa bopp ni nga bëgg nag nit ñi def la ko kon dee ko def doomu aadama yi wala day wax na lu waay leble moom ngay fayu moom lan lay fay kama tudiinu tudaan la ko arab di wax bokk yi alaaka bi war a dox doomu aadama bi ak yeneen i doomu aadamam mooy ak alaaqatul awaatif mooy ñeewante ak soppante ak dimbalante ci lu baax al birr wa taqwa ca bañ a dimbalante ci loo xam ne ak noonoo la wala bakkaaru ak mu jaamala tayiba mooy lan wax ju ànd ak tegginu ci ki ngay waxal mooy al mu jaamala tayiba yooyu yëpp nag nit ki saa su ko xamee dana xam kon nan la war a ci mbokki julitam ak nan la war a dundee sax ci ñoo xam ne duñ ay julit moo war a kon dimbalante googi ñu war a dimbalante dafa war a jëm ci birr wa taqwa mooy lu baax ak ragal yàlla waaye kenn ci ñun bañ a dimbali ci morom ci ak noonu kenn ci ñun bañ a dimbali ci ak ci moromam ci ak loo xam ne day waral bàkkaar waaye kenn ku ci nekk di sàmm sa kaddu ci sa morom ci ni ngay waxe ak mom ak ca ña ngay doxalante ak mom kan ku ci nek sam sa kàddu boole jëflante go xamne nak jëflante go rafet lay doon bu baax moy yi sekk ci sun biir nga xamne kenn ku ci nek dang ko jëflante sa morom ca bëggo sa morom ñu na ca wala mu wax la ca lu la metti wala mu trian ca kon da ngay jéem jëflante ak sa morom rek jëflante bu rafet bu fekkee ne nag dem na ba yooyu yëpp dàq dafa am lu muy jur ci suñu xool mooy ak bañeel ak bañeel lay jur ci suñuy xool bu fekkee ne ak bëggante amut ak soppante amut ak yéenante jàmm amut kon la muy jur ci suñuy xool ak suñuy dënn mooy ak bañante ak ak soxor ak ak iñaanante te loolu bokk yi lislaam lislaam daf koy tere kon loolu bokk na ci li war a moytandiku moo waral bu ngeen demee ci alquran suñu borom di wax ne walladina jaau min baadihim yaquluna rabbana gfir lana gaa ñi nga xam ne dañoo ñëw gannaaw bu yonent yi jàllee biñ dikkee ñoom lan lan doon yaa wax ñaan yàlla yow yàlla na nga jéggal suñuy mbokk yi nga xam ne ñoo ñu jiite woon ci lislaam alladina sabaquna bil iman nga xam ne ñoo ñu njëkk a gëm njëkk ñoo nekk tooli xare yi njëkk ñoo dugg ci lislaam njëkk ñoo def lu baax yàlla na nga jéggal ñoo ñëpp ca bul def ci sunu xol mbañeel guy dox suñu diggante ak ñoom bépp jullit boo xam ne aji gëm na rek yow yàlla ñi ngi lay ñaan bul def ci sunu xol ñi di ko bañ ab jullit du bañ moroomum jullitam du ko noonu du ko wax lu ñaaw léegi nag jullit yi ñoo dàq waxante lu bon jullit yi ñoo dàq waxante lu ñaaw jullit yi ñoo dàq melo melokaan woo xam ne lislaam gërëmu ko kenn ku nekk dëkk barab di xas sa morom wala nga wax sa morom lu ñaaw te loolu waru ab jullit ca ji jamono jii ñëpp am na fi ñu ngi koy gis bokk yi leeru gëm bu nekk ci nit ki day fex loolee da koy dindil ak mbañeel ci xolom leeru gëm dëgg-dëgg bu nekk ci doomu aadama lan koy njëkk dindil mooy ak mbañeel dégg ak ak soxor ak bëgg daraja ak bëgg daraja moo tax yonent bi sallallahu taala alayhi wa di tare ak jullit ak mbokkum jullitam ak iñaan di dox seen diggante walla ak déjoo dégg nga ak bàyyante wala ak daggante wala ak meronte moo tax mu ne laa taqaataxu bu leen daggante di bàyyi maanaam bu kenn bàyyi sa morom bu leen foñante bu leen merante bu leen iñaanante na ngeen doon ay jaami yàlla yu set doon benn bokk innama al muminuuna iqwa fa aslihu bayna aqawaykum jullit yépp ay mbokk la kon li gën mooy jullit bu ci nekk rafetal sa mbokkum jullit amul kii tijaan la amul kii murit la amul kii laayeen la amul kii zazaliya ginnaaw nee na ashhadu an laa ilaha illa allah nga ne ashhadu an laa ilaha illa téye ko sa mbokkum julli tango fala taadu man raaytum faaw yaqruj laa ilaha illa allah sëñ tubaa nee na ku ngeen gis giñ mam di wax laa ilaha illa allah bu leen ko def am noon ab tariqa warta taxaw fële di xas moroomu tariqaam ab murid warta taxaw fële di xas ab tijaan ab tijaan warta taxaw fële di xas ab ab murid ca yooyu yëpp it bokk yi léegi-léegi ñu gis ko ci internet bi ñuy wax wax yu doy waar nan dellusiwaat ci xel ci xam innama al muminuuna iqwa fa aslihu bayna axwaykum ca nag nit da nga bokk ak moom ndey ak baay wala muy sa soxna bu faatoo doo ko doon te yéen bokk deret wala muy sa doom nga jur ko sax bu faatoo doo ko doon lu ko waral ixtilaafu di da ngeen a bokku diye yaa jur doom ji yow nga di ab jullit moom muy ab yéen ab masihi wala ab nasaraani nga xam ne moom doo ab jullit loo bari bari alal sa alal ja bu faatoo du doon ci miraas mi xoolal foofu rek nga xam ne kon jullit ak jullit rek fi nu war a fi nu war a gën a jàppante da nga jur doom ngeen wutee diine du la doon doo ko doon du la doon nga am soxna ngeen wutee diine doo ko doon du la doon kon ixwatan nasab mbokkum diine moo gën a foor ixwatan nasab ci lislaam mbokkum deret mbokkum diine moo gën a foor mbokkum deret ci lislaam kon mbokk yi nan dellusiwaat xel yi ca xam na jullit yépp ay bokk la jullit yépp ay bokk la loole nag la koy maye mooy kenn ku ci nekk yéene sa moroom jàmm kenn ku ci nekk def na sa moroom na sa bopp ca bañ di dajaloo di jayante wéet di jëwantee ka lekkante ca loolu moo fi bari mbooloo mu dajaloo kenn ku nekk naan sa moroom est-ce que bu ñuy teqalikoo kenn ku ci nekk yaa ngay jëw sa moroom naan diw diw diw diw diw diw nangam ak nangam te loolu bokkul ci baaxul ci ak ànd bokkul ci ka ànd te mbooloo mu gis ne mu tas nag looloo ko tas daayira bu tas ànd jayante weddi jëwante ko tas kër gu tas ànd jayante weddi jëwante ko tas association bu tas ànd di jayante way weddi jëwante moo ko tas yooyu rek moo fi nekk nag jamono ji ñu nag daanaka lii ñuy dund moom soo ko waxee ñu dëkkal la foo dëkkul fekk na nag dëgg nag moom la yàlla bëgg dëgg moom des koy wax ku neex لسكي وقت كم نقرأ لسكي وقت الحق حق لا ينقلب باطل والباطل باطل لا ينقلب حقا لولي نك بوكي بون بون كو خامي رك ني ني دوندي دا فا ورا دون خام لو سيد لي دون كين كو سي نك امبر سبب او يو ني باغ دي وخال نيت لوم واخو دونتا ياو لان كو نون جوبلو وكو بغو كو مي وخال كو لوم واخ بو كو وخال موكو لوم واخو بو كو وخال موكو لوم واخو كون نيت كي دو وخال نيت كي لوم واخو moo tax tuuma tuumaal nit l'islam da koy bañ bari na tuuma yoo xam ne nag du sete fii yowmal xiyaam lay sete ca nag kenn ku ci mën a mucc nag amul soxna si yonente bi salaa salaam ko fi jiñoon ak njaal ku ko setal yàlla moo wàcce alquran setal ko kon nag yooyu yàgg na fi ci àdduna bi kon nag jullit yi bu fekkee ne ñoom julli gi ni julli ci jàkk yi ak di woor ak di def lu baax dëggu na ci seen i xel ak seen jëmm faaw dana war a bëggante soppante rakkaa yi bari lool bu ndikk bu nodde yaa jiitu ca jàkka ja ca wallaahi bu la joxoon paak nga rey sa mbokkum jullit bari na fi kon yooyu jullit yi nan koy moytandiku ci xam ne bokkul ci diine bokkul ci lislaam moo war a sëñ Tuubaa radiyallaahu taala nee na booy tudd nit wala ngay fàttaliku ci moom soo xamoon fukk yu ñaaw ci moom mas a xam benn bu baaxam booy tund tuddal benn bu baax boobu waskur maxaasina maa fihim idaa zukiru bokk yi da ngay def téeméer yu baax benn bis ñoo nga def benn benn njumte ñu jël benn njumte njumte ba ma majaasite ko kenn ku nekk jot ci fàtte nañ fukk yu baax yi nga defoon fàtte nañ lu baax la nga defoon de benn njumte ngay def te fekkee def nga fukk yu baax wala téeméer yu baax ñu jël benn njumte ba ma majaasite ko ba ñëpp yëg ko ci àdduna bi loolu moo fi am kon nani nani nani delloo xale ci jëm te ban di xool tey rek waskur mahadina ma fihum ida zukiru la sëñ tubaa loolu nag jullit bu ci nekk moom la war a delloo si ci am xelam kullum na aadama xata xata doomu aadama bu nekk day juum yonent bi nee ne ki gën ci ci ju way juum yi nag mooy ki juum ba pare wala bëti kuwaar nangu na dafa juum jubluwaat borom bi subhanahu wa taala kon sëñ tubaa nee na nañuy fàttaliku lu baax loolu ca cay muñ sëñ tubaa nee na nañuy muñ ŋàññi yi mooy xas sa yi ñi ini li ñu leen i xas ca bul tontu kenn nee na liñ la li ñu teg sa der bi yow bokkum jullit ñi muy lu ñaaw muy lu mën a doon nee na dee ko muñ ca bul tontu na nga def na adib ba waxoon rek wala qad amru ala laim yasubbu nii ma fi ma aifu min wa qaala la yaani nii damaa romb benn waay benn waay bu kàccoo rek mu di ma saaga di ma wax lu bon di ma wax lu rek lu ne man ah kii daal li may wax du ma jariñ nee na ab jullit Sëñ Tuubaa nee ab jullit noonu la war a mel lu la mën a wax ci lu ñaaw muñ ko ca xam ne loolu du la jariñ ndax wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jugee la dëkk loolu nag buñ ci bàyyee xel dara mën na laa bañ a naqare ci kaw suuf ndax nee na ay ay ŋàññ yu ànd ak ay nar muy ay kàcci ne daa bokk ci jukk yi gën a bon ci kaw suuf daa bokk ci jukk yi gën a bon ci kaw suuf moo war a Sëriñ Tuubaa waxal ne na ngeen nekk ay jaamu yàlla te bu leen doon ñu iñaan ba nopp di booleeg noonu daal di wax ne képp koo xam ne li nga bëggal sa bopp da nga ko bëggal sa mbokkum jullit yàlla da nga am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala daal di wax ne li nga bëggal sa bopp it na nga ko bëggal sa mbokk yi loolu moom la mag ñi nekk woon ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy ahlu turoq ñi sas tariqa yi dan daan dem lente di dikk lente ak fekk lente kenn ku ci nekk fa nga nekk di liggéeyal yàlla la ngay liggéeyal yàlla jullit yépp nga yéene kenn ku ci nekk am ca gis nañ diggante Cheikh Sidi Alaaji Malik ak Cheikhul Xadim ma Alaaji Malik ba mu bindee baytam yooyu na haddiyatun mujibahaj talaab mahabbatan ya ayyuhal hubaab adaama rabbuna al ali habdal witaal yaqilina hadaama rabbuna al ali habdal wisaal wa kafana sarra aada wasaal وكف ناصر الله سعادة وسال جل جاري بي يوي اك اديام جو سنتوبا ادري جوم كو جوخون جوكو لو بام ديك سنتوبا لا لا جزاكم غير الجزاء الوهاب وفي صفة الوداد لا ترتاب فكيف لا والمصطفى مجاب امامنا والقتل ننهب نكو واو يا ولا جمالك لان ما ورال نون دون بغنت دون سوبانتي دون جوخانتي اي اديا دون دم لانتا ديك ديك لانتي سا نون ني بوك كين بن سري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ñun ñu bokk benn sëriñ mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa naka la ñuy nekk nag ñun ñëpp nag bokk benn sëriñ mu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ca lu yàlla bind nag yonente bi moo ci gën lu yàlla bind yonente bi moo ci gën sëriñ boo mën a nawi ba teg ko ci kaw yonente bi da ngaa juum sëñ Tuubaa së yonente bay sëriñam alaaji maar yonente bay sëriñam ñoo ñëpp kenn ku ci nekk dañoo buggante woon ngir yonente bi salaa sallam ñoo bokk alquran ji bokk kaaba ji bokk rasulullahi salaa sallam sëñ Tuubaa ne ko waa lan moo waral duñ soppante bëgglante ak demlante te ñu bokk benn sëriñ mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais loolu boo bokki dañ koy indiwaat bu tijaan bi di xas murid bi bu murid bi di xas tijaan bi bu laayin bi def nangam nangam réew mi nag bu tasee wala mu tàkk looloo koy taal rabbana la tusu qulubana bal tana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a wa arina al batil batila wa rzuqna ijtinaba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا وارزقنا وحدنا من ذكر انك انت الرب والطف بنا وخونا وكلنا وحدنا وسل الختام ربنا وصليا على النبي وسلم وقضي بحاجه كل مسلم